man ziar na la yal na yàlla ko ziar waa wasaare lamb ndax yéen a koy wasaare ngeen yéen a koy wasaare jàmm <laughs> maa ngi sant yàlla bu baax nga yàgg si lamb trop kar masala ñu ñaan mu sa sa taxawaay si lamb am na njëriñ mu am ñu jëm si combat la cinq démb mu amoon coow lu doy waar Sa Thiès Reug Reug coow loolu man dama cee xaw tiit ci lenn rek fenn laa ci xaw a tiitee xam nga promoteurs yi am nañ problème sponsor te sponsor bëggul lu tinimal produit te lii bu ko sponsor yi gisee dañuy gën a daw te ba sponsor yi dawee promoteurs yi ñoo ci sonn ndax promoteur bu ñu sonnee du ñu mën a fay mbër yi loolu day indi problème ci làmb nañ koy sóor gis nga euh, làmb sport la boo xam ne ñun suñuy jamono lii violence bi man jaaxal na ma violence verbale sax dafa baaxul nit ki mën nga jaay komba ba noppi du am violence mais lii ñu def nii démb man vraiment dama koy condamné à 100 pour cent dama koy condamné vraiment nekkul loo xam ne neex na sama xol vraiment neexul sama xol. nga seetaan leen ñoom ñaar ñëpp combat bi kan moo si avantage at la mooy avantage Sa ak la mooy avantage Reug Reug. avantage bi ñoom ñaar du ma jox kenn cinquante cinquante lay wax kenn ku nekk da nga am sa style bopp Reug Reug day jàpp di dajale Sa ndax dina ko may mu jàpp dajale ndax Sa Thiès vivacité lay bëree en général. Sa Thiès bu bàyyi vivacité ba rëg-rëg jàpp ngembam dajale avantage su rëg-rëg la waaye rëg-rëg bu seetaanee ba Sa Thiès dal ci kawam ba mënta jàpp avantage su Sa Thiès waaye match nul moom mënu cee am parce que ñaari mbëri moom kenn mësu cee match nul. rëg-rëg yàgg naa dugg géejawaay waaw ah mais mais mais rëg-rëg xam nga rëg-rëg dafay xale boo xam ne peut-être euh, euh, xamul xamu ko sax rëg-rëg amul ku mënta daan. amul ku mënta daan gis nga même ñi fi nekk o sommet tey ji boo ko jox Reug mën na leen a daan kon nañ def attention bu baax gi nga Sa Thiès ak bokk na ci xale yi nga xam ne ëllëg ñooy mujj làmb ci moo tax ñu war a rafetal quoi moo tax li ñu waroon def démb li amoon démb daal waruloon a am. avantage si xeex bi ñoom ñaar. Euh, Reug ndax Reug Reug MMA bi mu def li mu mën doon jàngal nañ ko xeex bi waaye Sa xam nga day laaw waaye nag Sa li ci ëpp bëre bi. moo ëpp xeex bi waa Sa Thiès bëri moo ëpp xeex bi waaye nag Reug Reug day xeex day bëre waaw. Sa Thiès dañ ne combat yu bëri day def erreur soo ko daan. xam nga gars yi ñoo ko jàppee erreur mais man dama yaakaar ne stratégie am la parce que des fois mu mel ne luy juum ci biir juum googu ci ngay ñëw di ko jéem a exploité mu nax la. ñu daan juum ak Reug Reug ban. moom ko juum mu exploité ko. Sa Thiès moom seeboo mu jël bëri bi teg ko ci yoon. parce que mi ngi bëreeg mbër moo na ne ndoxtu lay bëree ndoxtu kuy bëree ndoxtu nag booy bëree moom da ngay calcul demil ne dam yee kon Sa na mu daan bëree bi yoon na vigilant waaye bu mu bu vigilant wul rek mën na am lu ko pour cent 50 pour cent ku nekk mën na daan moromam waaw 50 50. lay ziar bu baax. yàlla <laughs> merci. merci wala ñaaw nuyu naa la. maa ngi lay fay. tey sant ak muñ. waaye dafa mel na. daa neex am na ndam ñu xaar laay njaay kanam mu ñëw. Ah, waaw waaw tey la drapeau bi <laughs> <laughs> incha maam ñaaw ñu jëm si le 5. Sa Thiès rëg-rëg ñoom ñaar loolu ñu mën a wax si ñoom. gannaaw bu ñu sant yàlla di julli Seydina Mouhamed di sant suñu ñaari wéjur di nuyu fa nga xamante ne fa lañ jógee muy tëngeej rawatina waa Dangu jël nuyoo gi teg si loxo Imaam Ratim Ibrahima Ndiaye waa le 5 le 5 dina nekk journée bu doy waar ndax euh, ñaan ñu mu boole ay ndaanaan lañ ay champion lañ Sa Thiès kenn dootu ko présenté si làmb waaye Reug aussi yaakaar naa ne ñi seetaanu làmb sax xam nañ waaye ak lu ci mënti am ñu ngi ñaanal promoteur bi yàlla defal ko jàmm mu nekk une réussite totale. tey jii Sa Thiès Reug Reug ñii ne Sa Thiès ngi soog am adversaire ñii ne Reug ngi soog am kenn juumul. bu ñu ñu ngi soog am adversaire c'est par raport ak ñañ daan bëre ndax Sa xam na ne ku mu mës a bëreel du Reug Reug Reug Reug xam na ne ku mu mës a bëreel du Sa Thiès un combat très équilibré sur le plan tactique un combat très équilibré sur le plan technique un combat très très équilibré sur le plan stratégique parce que ñaari mbër yëpp yaakaar naa ne àgg nañ ci làmb foo xamante ne nii euh, juum du yomb si ñoom ci niveau de professionnalisme nga xool Sa kan mooy ma Balla kan moo ko yor Aziz Ndiaye yàgg nañ tukki yàgg nañ préparer làmb donc du ñëw di desel waaye rek aussi ñu gis que lu mu def si simple bi def ko ci frappe bi mais aussi def ko ci MMA bi ñëw taxaw nga xam ne c'est un champion fini. ñoom ñaar si xeex bi kan moo avantage. waa man gisuma ne làmba la joo xamante ne xeex bi dina metti non non parce que ñoom ñaar ñëpp du ñu ay xeexkat te yaakaar naa ne mbër li si gën a wóor di nga bàyyi si man di def loo xamante ne man loo ko Sa Thiès du xeexkat Reug Reug du xeexkat moo tax gëw ma ne bu ñu xeexee xeex mën na am avantage ndax defal loo man waaw dafa loo man Sa Thiès carrière Sa Thiès sorti mu def yëpp da ngay gis si biir làmb da siy juum ak waaw en juum ya juum waxoon nañ ko ko si Boy Niang boo juumee si Boy Niang <laughs> dinañ la yëngu yóbbu te la ko daloon si Boy Niang bu ko dalee si Reug Reug ko yóbbu juum war ko si combat bi juum Reug boo juumee lu doon tarfatul ay ni mu boole kaa la mu yor daan la dem ñibbi loolu moom kafee ko sax. maanaam def daan ko. mu war a tourner pour rectifier boobu. non su doon moom nag combat Balla Gaye dama koy tege na moom mu concentré wu si carrière am préparé combat am ak Reug Reug parce que léegi bu ñëwee rek day nekk charge si kaw te dèjà bëree Reug Reug rek dèjà charge la na xam ne Reug Reug la amal contrat Reug Reug la wala bëri Sa Thiès ak euh, Balla Gaye ak Boy Niang bëri nañ ba pare nañ taxawee nii mais daal combat moom li si arrangé Sa Thiès mooy mu tey. waa xam nga day naxaree day naxaree jugé nag parce que ñoom ñaar ñëpp ay ndaw lañ. ñoom ñaar ñëpp dañuy entraîné te ñoom ñaar ñëpp yoruñu staff yoo xamante ne bu ñu entraîné ba pare dañu leen di bàyyi ñu dem euh, dem nekk seen sago te ñoom ñaar ñëpp ku si nekk danga nga yor soxna xam nga kii bu yoroon soxna kii yorul soxna sax ñu xaw a kii mais ñoom ñaar ñëpp dañoo dañoo dañoo dañoo équilibré si lépp dañoo tolloo si lépp maintenant mu des rek récupération parce que combat boo xool ñëw na ba pare mais nag si lu bëri Sa Thiès moom li xaar bu yàgg bi nag baaxul mais aussi buy dem ko Sa Thiès parce que bu sànjaafoo Sa Thiès bëree loolu dina am lu ko nekk non bi ma gis yaakaaruma ne nu mu bëree combat yooyu lay bëri seen rëg-rëg non non Sa jàpp naa ne dina jàpp ne sax bii mooy premier grand combat te li ma la wax ni nga bàyyi sa xel di nga gis round d'observation gis vigilance gis tey gis tekkaaral gis lu wóor si Sa Thiès buy bëri seen rëg-rëg bu daawul xaar ba dina xaar waaw non xam nga adversaire bu nekk ak ni nga war a bëree moom si làmb bu àggee benn niveau bi lamb bu àggee benn niveau bi adversaire bu nekk ak ni ngay bëree moom Sa bi ñëwoon contre Boy Niang ak Sa bi ñëw contre Reug Reug dina am différence bu baax non indiscipline tactique bi ñu doon gis ci bu dañul dina wàññeeku ndax dina sédd cër Boy euh, Reug Reug waxuma la sax la magam jógee waxuma mu bàyyi ci xel mais moom sa la mu jógee rek parce que dafa bëre Boy Niang jël defet ñëpp ne Sa moo daan boppam te wax dootul bëgg mu daal ko maanaam na bëree ba daan waaye Sa Thiès daan boppam maa lay bëgg maam maam ñaa maa lay bëgg maa lay siyaare